ma ne sénégalais li ñuy dund FMI xam na ko sénégalais ñi ngi lekk ba suur ñi ngi naan ba suur njàng mi dox na paj mi dox na leneen leneen ñu naan ma FMI wax na wala ñaari fan ñett yu ñu ne waaw sénégalais bi France jox na ko raaya loolu mérite individuel la mérite individuel la ay raaya France ak raaya keneen ñun fii la ñu tal suñu réew mi wala su leen neexee ñu jógati ne léegi nee nañu ceebu jën Euh, adduna bi xam na ni ceebu jën nag Sénégal lañ ko xamee donte Gambie dina ko togg euh, Mali dina ko togg Côte d'Ivoire sax dina ko togg Mauritanie dina ko togg Burkina léegi mu langaamu ci ceebu jën bi yow bu ecole bi di tàkk kenn du la gis nga def nga nga def communiqué ci ska kii Twitter réew mi buy tàkk doo ko def étudiant yaa ngi nii mi ngi mu ngi mi ngi tàng bu doon réew bu normal président wax na ci du ngeen mës dégg dégg Macky wax ci sante ñi ngi grève Macky du ci wax transporteurs yi grève nañu makki du ci wax leneen geneen waaye ceebu jën mu nekk fi naan day def post ah kaldu kaldu bi sax mbaxalu saalum yooyu yëpp suñuy plat cere mbuub yooyu yëpp nañ ko yóbbu waaye moom moom su meloon ni mu war a mel moom su meloon ni mu war a mel tey sénégalais yi nañ lekk ceebu jën ñaata sénégalais ñoo la ñoo ñeme lekk ceebu jën ak ak ak coof ci digg ba léegi waa sax la ñuy defee ceebu jën jaay na géej gi yëpp mu naa xaw ma lan que le Sénégal ceebu jën nangam nangam yooyu yëpp li muy wane mooy président bu matadi loolu tax nag ñun ñu ne woon tappale gi dafa doy.